yàllaa ngi fépp allahu fi kulli makani am na ñoo xamante ne dañu jàpp ni ñooy buum di buum yow yow la ñuy tooñ yow yaay baale yow yaay jéggale yow daal yow yaay jëw waaye ndokk man dama kontaan ci sama collaboration bi ma nekk ak yow. loolu baax na waaye daal lenn doo laal bëgg a xamal hmm. ah. damaa bëgg nga correct te jóg. te xam ne doo gone mag nga. am na ci yoo xamante ne gor moomu ko. dëgg la dëgg say naw la nga fi nekkal nag am foo ne woon jóge foofu ñëw ci fii ci man. fu ma yàgg ñu bëgg ñëw na. da ngaa yor njaboot dama bëgg nga tranquille may liggéey nga ci am may am nga yóbbul sa njaboot. samay xar nag yomb nañoo jaay ndax man raas laay jaay. te bio la kat. Oh. xar yi nga xamante ni kenn du ko ba jox ko benn gel ay xaru xaru xaru juba ngi nii. yàgg naay nekk fee. Ah. yàgg naay nekk fee. Ah. mais xar yi seen wàllu bopp moo la waxee ni la man secret bi dama la koy wax benn yoon <laughs> secret bi laa lay jox benn yoon mu toj xar mi saa bu ñu suba dina leen sexal ñaari doom suba bu nga ñuy tëdd ñu joxoon la ñeen ñaari doom yéen kan ngeen di waxal yéen xam nga yéen lan da ngeen ñàkk jom ngeen def seen coalition ñàkk jom jàkkaarloog man bu ngeen amoon jom du ngeen wax ak man yéen xaru bi yi ngeen topp naan dafa am lu ñuy naan yéen ku leen ko gën a soxla yéen amu leen fer amu leen politique yéen zéro zéro <laughs> yéen yéen a réew wuy yaay. waaye yàlla ba ah. seen coalition yëpp bu ñu ko boolee matu leen dara. salaamaaleykum maaleykum salaam. ça va ah, si. waa sama càmmin. waa kii du càmminu jàmbur. waa na ngeen def. yaa ci jàmbur. waa ñu ngi ci kawam rek. ah yéen a ngi waajal. ci kawam waaw waaw ñu man beneen laa bëggoon pour sama yaay. xar mu baax. waaw xar moo xam naanul doom. comme bi nga ma fi jaay rek bërki démb. déggoo li ma la wax. Ah. man nag bu mag laa du ma yàq xar bu ngande laa bëgg pour sama yaay. dama ne la yooyu ma la jaayoon ay xar la yoo xamante ni dañ leen dañ leen renforcer engrais hmm. dëgg jaa nii. xar yu naturel la ngi nii. xar yu xar xar yu mat tabaskee ngi nii. ku baax waaw xanaa xàmmeetoo ma. bu baax. lii lu ma koy doy. non mën nga noppi yaa ngi sa njëriñ te xamoo ko. man sama yaay laay jëndal xar du ma yeewa bopp ngandum kuy di yeewa sama yaay rey mu dee rayul mu dee sama nawlu yëpp di ci teg bët. non dama ni. xar moom mu la jaayoon ba tax ngay jaabante nga yaakaar promotion moo fi am promotion boobu arrêté na. koo la doon jaay ay xar. ba tax na ngay jaabante ñëw def sa greffage bu meuf di wange wange li di jaabante mel ni kuy festival naan sama yaay laa bëggal sama papa ak sama xar xam nga lu ma lay xamal soxna si mieux vaut que guérir xar mi nga xam ni moom la la fi jaay barki démboo njaay yow biir na ni la yow leer na ni la ba nga demee seen kër nee lan la xar mi nax nga waaj déglu rek man de wax dëgg yàlla duma la sa jiita dem ba seen kër mais jàpp naa ne war nga mën a gore ba booy tëbasee nga tëbasee lu leew yow tu parles avec qui comme avec toi madame je parle avec toi je toi tu me connais toi ah. Ça ne m'intéresse pas. Ah. Attends, madame. Moussafa, tu ne le connais pas. C'est le fils d'Anaconda. Je ne parle pas avec toi. Je ne parle pas avec toi. Faites votre conversation, gérez votre vie. Ça, on va le régler. Je vais appeler tout de suite mon papa. Il va venir ici. On va le régler tout de suite. Tu es qui Tu es un directeur de pétrole ou tu es un directeur de phosphate Tu es qui eh. attirant ah, mon employé. Tu, la nuit chez toi aujourd'hui. Tu vas passer à la nuit. ah, <laughs> ah. fanaanu ma seen kër bu dee da nga yaakaar ni nga ma mën naxe madame donne-moi mon mouton je vous rembourse votre l'argent je n'ai aucun de problème avec toi sëñ bi da may woo ci la nga xam ne xaw ma ko dama nag ginnaaw yàlla sama papa mooy sama kilifa sama papa laay woo ñu ñu réglé ko léegi ci justice léegi nga xam ne lépp dëkk la loo séeréer defal nànk eh soxna si defal naa waa de waa di. xaw la ci justice nga ma woo may ma waaw ñu waxtaan. soxna nan ko discuter labalement. non non amiablement comme que yow gisoo loolu. man ku baax kee moo ma jaay keroog benn xar bu cent soixante quinze mille. ma ñëw tey yegg seegu ma nga. soxna si ma ci déglu ma. soxna si wuy ma wuy ma du ma la bàyyi nga yeggale soxna si. soxna si man maa déglu soxna amul nag dee ko woowee. waaw pas eh. eh, ah. déggoo ma la kenn du eh. ko lijjantee ci gerte gi. fii lañ ko tëggee mais kenn du ko fi lijjantee. tribunal la waaw dafa nàkk bu sa papa wàcc na bi deux heures na xaaral ñu waxtaan. man bu ma kenn témoin loo. waaw seen nekk foofu laa doon liggéey démissionné naa bu ma kenn dugal ci ay. seen nekk waaw seen nekk waaw ma dem jëli sam ñu ñëw tey yow dig ngay fanaane aywa bu ma yóbbu dig yow dama xat yow ja jàpp leen si tamit waa doo leen wax ci yéen tamit <laughs> yow maa ngi yaa yaa yegg sa carte balaa digg ñëw. foofu mu njëkk sa fanaanum biig ko. yee. sa waay. waaw ndek doxaan li ci dàq. Ah. mooy ndaw ju si duggal ci biir néegam courant coupé. ay naka laa na sarax ci kër gi ndaw si na ma duggal ci salle de bain mu daal di jël puudaru bébé bi na ma ko poq poq poq poq. eh waay. def fu ma defan damay kuus. ndeysaan mu teg mu ne la timm nag naan ma. chérie je t'aime Cerise ta dër gis tan gin gin taj sa gi dat gi gi taj eh sa gi gi taj sa gi dat gi gi taj eh sa gi gi taj sa gi dat gi gi taj